asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bu ngeen jàkkaarloo waatee ak jataay bii ci waxtu wi ñu toll xel yu bari dana demaat ci bis bu mag di bis boo xam ne bu amutoon nooflaayub àdduna ak bopp àllaaxira du yomb bis boobu nga xam ne ca la jàmbaari lislaam ja di seyxuna ahmadul xadim rañane won ci dëkkam bi mu ñëk a sanc di daru salam ñëw Touba jóge fi dem Mbacke Bari jóge Mbacke Bari nak waxal bopam ne kharaj yow yawma sabti samina asar li khidmati al muxtaari fi shahr safar tak la laxasaayug liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jaamu borom subhanahu wa taala ba def juróom-ñetti at yu manki tuuti ci liggéey bi ba ab liggéeyam agge ci la wax ne wallahu yadduhu ila daari salam wa yahdi ma yasha ila siratin mustaqim ti alquran moo tax mu ne wallahu yarduhu ila daari salaam la Bamba wax ñëpp ne mu doon malaam bis boobu nga xam ne ci la àndaale sëri cëb di jot nit ku ñuul waaye nag may leen yaakaare alaxira jam waxoon ne sama liggéey àgg na danaa jóge ci noon yi delluwaat ci sama dëkk ba ma sancoon muy daaru salaam waaye sama fa àggee nag sama dellu googee ical rujuhi naa xawmi saadatana wal takfina yow ma jamhil xalqi nirana sama delluwaat googu may delluwaat ci sama mbooloo moomee sërice bi ma leen di yóbbaale mooy yàlla nanga nga leen ca fegal sawara te nañu tàbbi àjjana ñoom ñëpp bis boobu nag moo dëgmalaat moo tax bi mu dëgmalee sëriñ Abo Mohamed xalifatu cheikh Mahamadul Mamoun dem ci sëriñ Touba cheikh Mahamadul Montaxa laajaat ko ci ndigal ndax fi jamono toll sëriñ Montaxa na ko bis boobu daal li ma ca xam mooy nañ ko woote ca woote ko nañ ko daan wootee yi sëriñ Abo nee na ku daan màggal si woowaat na la ak na nga daan màggal see ndax bis bii kat amuñu benn bis bu ko gën a màgg moo tax mu toog nag ak mbooleem buntu këri borom gaawaan yëpp danañ jox kaddu gi sëriñ Cheikh Anta Mbacke mi nga xam ne mooy wax ci turu sëriñ bi ubbi jataay bi wax ni ko sëriñ bi bëggee su noppee danañ jox kàddu gi sëriñ Modou Mamoun Sylla mi nga xam ne njàngoom alxuraan mi le 26 la war a tàmbali màggal gi doon la 30 incha allahu rabbi su noppee sëriñ Abdoul Khadir Dia dana wax ci turu Cheikh yëpp su noppee nag sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoul Akram mooy woo bokk yëpp kon ñun ñëpp ñu maa si déglu sëriñ Cheikh Anta Mbacke xalifatu Cheikh Mamadou Roqaya. waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. no ngi nuyu mboolem bokk yi nga xamne ñi ñu fi tew di njabotu borom ngaawan ak njabotu maam serigne Afia ak njabotu suñu bakki Buso ak njabotu maam Cerno ñu tew fi ci ndigalul serigne touba serigne muntaka kaddu yi ma serigne abou di jot lo nak day kàddu yu jafe yoo xam ne yii jafe na lool nee na ginnaaw boo xamee ne jiital na sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxaa ci woote bi muy woote ci màggalu Daaru Salaam gi ànd ko ak njabootu sëriñ gaawaan gépp and ko ak njabotuk serigne Modou Mamoun gep Nena mi ngi sante mbooleem bokkam yi nga xam ne dañoo bokk ak mom serigne gawan tim jimmi mam Cheikh Anta ak fàttaliku bis bi serigne Touba ñëwoon fi jóge ci nattu bi ginaaw bu mu defee juróom-ñetti at yu manqué tuuti te bu ñu seetee bis bii nu jëm nekk téeméeri yoon ak fukk ak juróom-ñett waaye sëriñ bi ak bokkam yi nga xam ne ñoom la woo ñu ànd di def woote bi tem na woon du ko def mukk te ñëwuñu rawatina waa kër sëriñ Afia suñu boo nee na magal gi mi ngi ci woo taalibe yeb nañ ci daan ñëwé bu ñëk nañ ko ci nit ñi nañ ko ci ñëwé né nañ ñëpp lay wo rawatina wa administration bi ñom ñëpp ñi ngi leen di wo la ko dale ci président Macky Sall ak ñeneen ñi nga xam ne ñi nekk ci kujje gi ñom ñëpp ñi ngi leen di wo ci bis bi ndax ay taalibe ay lañ di ay wëlëre kon ci ak taalibe lañ leen di woo ak wëlëre jërë ngeen jëf sëriñ bi mi ngi soññ ñi daan teew si ñëpp moo xam mbokki Touba la ak e, daara yi nekk ci biir tubaa yëpp ak mbokki boofeel yeeg mboppi Sam Thialé yeeg Taïba yeeg ak lu mel ne Madina ture ak daara yi nga xam ne ñoo daan ñëw ci màggal gi te ak waa njaareem njaareem googu ñu gën cee ràññee kër sëñ Mor Mbay Siise nga xam ne dañ ko daan ràññee ci njaareem 1 ak kër sëñ Malick njaareem 2 ak waa Gede bu sa gépp ñu ngi soññ ñëpp daal ku dégg kàddu suñ kàddu ak ku daan ñëw rek nga xam ne màgg gi sëñ bi mu la koy fàttali. seen jël kàddu gi turu Serigne Abo xalifa Serigne Modou Mamoun jox ma ndigal ma woo mbooleem seex yi seex yi borom gaawaan yëpp képp koo xam ne mbooloo ma nga àndal mbooloom borom gaawaan ñu ngi lay woo ci màggal gi na nga ko soññee te waaj ko àndal sa mbooloo ñëw nañ ko daan màggal lañ ko daan màggal nañ ko daan màggal lañ ko lañ koy màggal incha allah kon nag sëñ bi nee na mi ngi soññi ñëpp eh, mbooleem kurib taalibe maanaam képp ku mbooloo nekk ci ginnaaw rek sëñ bi mi ngi lay woo nga te nga ñëw waajal ko te ñëw te an ànd ak eh, soññi sa sa sa njaboot biir réew mi biti réew mi bàyyiwut kenn ak ñu nekk ci réew mi képp ku am mbooloo te mbooloo moom wóor ne mbooloo borom gaawaan rek sëñ bi ne mi ngi lay ci woo bàyyiwut kenn. maa ngi yëkkati kàddu goo xam ne ci ndigal laa koy yëkkatee donte yëf yi noo ko bokk waaye ndigal moo ma yëkkati te ndigal li it laata may jóg wax naa ci ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha. mu wax ma ne wax na ci ak sëñ aboo ginnaaw bu ma ko sëñ aboo yëgalee kon kàddu sëñ aboo lay waxe ndax yaakaar naa ne bëgg lu yaatu rek ak bëgg nu mu gën a rafete moo tax ñu doon nu xaar te nu nu waroon fee fanaan si war a laxasaayu ànd ak yéen ci liggéey bi waaye bu sëñ Cheikh Anta waxee ni mu waxe eh, ci bokk gi te ci bokk gi di gen kon sëñ boo nee màggal gi seen màggal la ña di bokk woo na leen ca waaye ña ji ay seex woo na leen ca ña ci ay coloré woo na leen ca di ci woo waa réew mépp ak waa bitim réew ak képp ku bëgg maam Cheikh Anta waaw wala nga bëgg sëñ Touba wala nga di jullit wala sa yaakaar ne fi moo xam ci eh, eh, baatiniyan la wala sayreen moo xam yaakaari biir la wala yaakaari biti mi ngi lay woo di sakku moom ñu ñaanal ko ba liggéey bi waajur yi doon def maam ya doon ko def mu man cee liggéey liggéey bu rëy e, tanu ànd ko ak moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf mbokk yi ñoo jot a dégg kàddu yi bàyyi ko ci kilifa yi te jóge ci sëriñ abo mouhamed xalifatu cheikh mahamadul mamoun sëriñ abo nag wax ne bis bi liñ koy tàmbalee mooy dafa fas yéene luñ fi jàng ci alquran wala luñ fi jang ci ay khasside wala kep ko xamne setan nga appel bi deggu ñuy wax law man ci ak ñaan nang ko def def ko addiyee borom gawan ak njabotam gam bokal nek ci barsak ñepp nak waye nak ñaanalat itam sëti borom gawan yi nga xamanteni bi ci at yi rek lañ tagalo dem aljana lako ko ci sëñ mor jaar ci sëriñ mamoun Ibra Ndar ba nee mi ngi ñaan sun borom tabal leen ci jannatul firdawsi wanal leen ak seen mam ju bax ja mam Cheikh Anta nee gi la 30 lay doon njangum alcorane mi le 26 lay tàmbali waye xam ngeen dëkk bi wares nako bale ndax magal gi day depo ak nawet mbale momit le 25 lay don insha allah rabbi ñing ko yëgal mbolem dairi set setal yi da ci bir dëkk bi diko ko commune bu mbacké nga xamné fi lañuy magalé ak commune bi Touba ñaari maire yëpp ñing leen ko yëgal kon nak sëriñ bi nee mi ngi ci soñ ñëpp nak di leen xamal ne it mbooleem lu ñuy def ci bis bi genn kilifa lañ ci am ginnaaw sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha mooy soxna Daba bintu maam Cheikh Anta moo fi des ci njabootu maam Cheikh Anta sëriñ Abo nee na mi ngi mu gën a guddal aw fanam waaye nañ xam ne lépp luñ ciy def ci teewaayam lañ ciy def ndax bu doon góor a tey jii fi di leen yónni bis bi la 30 lay doon sëriñ bi nee na mi ngi ci bis la borom gaawoon waxoon ne bis bii laay woote waaju fi ñëw والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته